wuy ji nañu maître Oumar Youm moom mi nga xam ne moom lañu ñu dénk mbirum raay bi ak yoon yi ci réew mi. maître Oumar Youm comme ni nga ko waxee moo ñu woolu ñu ànd ñu ñëpp def délégation dem wuy ji ko. situation bi nga xam moom la ñu nekkoon fan yi nga xam ni amul benn saxaar gu romb Cees gi di dem alors dem nañu wuy ji ko waxtaan ak moom en tant que des euh, ay patriotes maanaam ñoo xam ni Sénégal la ñu gëm liggéey ba tollu fii. alors biñ ko wuyoo tamit ñun ñëpp dañ ne pour ñu wóolu loolu bu baax mooy dañ koy bind si kayit xaatim ko. ndax njiitu réew mi président Macky Sall dafa nekkul si réew mi moom tamit maître Oumar aussi mu sensible si lii bi taxawaay bi amee mu woote ñu dem wiiju ko ànd ak le président Amadou Jigi ak délégation bi ñu dem wiiju ko ñu tënk réunion bi si. ci ay kàddu yu leer ci kayit bi nee nañu moom bu jógee si réunion bi dina lëkkaloo ak euh, nattangom bi yore mbirum koom-koom mi muy Abdoulaye Daouda Diallo pour que nu mu mën a def dans les plus brefs délais génne xaalis bi pour fay ko. ñu ngi yoreel euh, ñeenti téeméeri million ak juróom fukk la ñu yoreel retraités yi nga xam ne ñoo retraité ñoo ñoo ñoo dem 2018 ak 2019. dige yi dañ si jàpp ndax ñun jàpp nañ ni euh, maître Oumar Youm wóolu nañ ko bañ ñu ko wóolu mais si dige yi rek la ñu mën a jàpp ba gis leneen ndax ñun lii ñu def nii am nañu yeneen pexe mais ñaanuñu yàlla sax àgg si pexe yooyu ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla lii mu digee nii yàlla defal ko si ndam parce que loolu mooy ndamu Sénégal ay retraités yu toll ni ñun bon vraiment joxe sunu lépp si réew mi ñu ameel ñu lii di ñu ñuy def lii te si biir retraités yi am na juróom euh, fukk ak ñett yoo xam ne génn nañu àdduna seen njaboot vraiment nekk si ay situation yu méttee métti moo tax ñu am yaakaar trop ni kayit gi dañ ko respecté.